leneen li mooy ma am fi ma jëm muy suma diggante ak Balla Gaye foo ma tudd turam parce que son contrat moo ñu boole maa moom moo ñu tënk muy Gaston Production donc damay am sanction ñu jaar ci turam directement ñu taxaw seen euh, Gaston Production muy suñu papa Gaston woo ñu këram taxawal suñu komba Gaston ba muy taxawal suñu combat man maa ngi ci combat man ba muy taxaw suñu combat tamit moom mi ngi ci combat. Père Gaston woo ñu ci négociation ak staff bi ñu mu war a waxal ñu wan ne ko Boy Niang dafa nekk ci combat mu xamal ñun loolu intéressé wu ma. nekk ci combat bañ a nekk ci combat daanaka daanaka bëgg yàqal ab ngeen bëre ñu ne ko amul benn problème mu waxtaan ak gars ci kase mu trouvé kase boo gisee nag ma génne di wax nii moo dañ ma waxloo mm-hmm. sinon damay toog sama rukk ko ñëpp xam nañ Boy Niang nekkul mbër boo xamante ni chaque jour benn site ñoom moo wax sax doxee ma noonu da ngeen doon doon sama nawle ma war wax ak yéen mais su ma waree lu fees moom dafay tuur. Gaston woo ñu ñu toog waxtaan trouver temps d'entente ay contrat papier. ma si sama ménage signé muy père Bokhane jox Gaston Gaston signé jox ñu muy suñu papa Gaston. ñoom tamit ñu def noonu. Gaston ci ay kàddu mu wax ñu oralment ne Balla Gaye dafa war a bëri ak Bombardier yow da nga war a bëri ak Tapha Tine boo pare ngeen bëri. boobu buñ juumul ñun ñi ñëpp ay nit làmb lan te kenn mun fee wax sa moom lu amul boobu Balla amul benn combat am muy moog Bombardier man benn combat la muy maag Tapha Tine mu wax ni boo leen pare yéen ñaar yi bëri foofu suñu staff professionnalisme laaj nañ ko ñu kañ lañ war a bëri mu ne mu ne rek mu leen jox date parce que Pape Thialis joxagu leen date Pape Thialis bu leen waxoon suba suba tal bi ngeen di bëri ma wax la yaa Balla Gaye date bi ngeen di bëri ñu ne ko amul benn problème comme ñu ngi laa ma ji daw temps Balla Gaye nag depuis bañ jotee sama avance lu bari xew na fi mais ba léegi déggoo boo ñaa wax génn nañ fi ma nekk sama préparation baa ñu ne dañ may déstabiliser génn wax daane ne booy ñaa bu daanoo duñ bëreeg moom bu daanoo yi bëreeg moom. staff bi toog réunion ma ne gars amul wax nañ nekk suñu biir rek li ñu tax a jóg nañ ci nekk amul wax parce que tontu moom da ngay bàyyi ba tontu ci safee ñu continuer chaque jour ñoom ñu nekk ci débat boobu di ñu déstabiliser di ñu waxal ma bëri ak Tapha suñ boom def Tapha Tine gagné ma par avertissement. ñu commencé xaar ñu sax ni gars yi ñibbi ci stade bi lañ commencé ak seen i snap kat wax liñ bëgg a wax dootuñu bëri ak moom jeex na si fini kii du mbër wax li yaakaar ne wër rond point ak wax dinañ wax. ba léegi yéen ñëpp ngeen mën a seere boo ñaar déggoo leen ko mu wax ma nekk sama yàlla nag suñ boom dafa mën àtte nit ki moom bu la fayee sa bool nga mer li nga leble moo neexul suñ borom àtte ñoom ñu bëree def pire que daanu booñaa sax yaa ngi dégg ñu daal leen ci géew bi mën naa leen mën naa wax sax ñu daal leen trois fois ci journée bi daan la ci géew bi daan la nga jaaxaan daan la par avertissement nga dem seen ñu daanal boobu ba léegi gisoo booñaa tamit génn wax dara ba léegi ñu ngi suñu toog waaye nag xam nga làmb dafay dox ñun boo gisee ñu wax sax yooyu wax loo wuñu après dañu gisee gaar yeneen tamit ba léegi ñoom bàyyeekuñu ñu dégg ñoom ñu def ay sotti daanaka Balla Gaye Gris Bordeaux lay bëree avant muy bëree Boy Niang war a Boy Niang dafay xaar ba ñu Balla Gaye bëree adversaire yi war a bëri soog a bëri ñu gis ci nag xam nga làmb yaatuwul gis ci ay wax yoo xam ne yegg si ne ba ñun. donc nag bu yegsee ñun dañuy jël suñu matukaay. te Boy Niang mooy jël matukaayam mais estafam mooy jël matukaayam. ñu jël suñu matukaay toog réunion génn ma pour ma wax li ma war a wax. dafa que ñoom nu ñu gisee affaire yi sax waruñ pour bëri ak man. mais ñun waa kër Boy Niang tamit dañ leen wax nii par rapport suñu réunion ak bu ñu toog waxtaan lépp ñoom bu ñu wutee dara rek ñun yombalal nañ leen ko pour ñu xam ko tey. Balla Gaye bu fekkee dafa bëri Gris man Boy Niang ma bëreet ak moom moom dafay bëre Gris Bordeaux pare bëre Eumeu Sène si ñaar adversaire wala mu kum ci teg mais man damay bëre ci ak beneen adversaire pour Sénégal yëpp ñu xam ko ak monde lamb yi nga xam ne dañuy xaar combat Balla Gaye ak Boy Niang ñu wal leen bu fekkee dafa dem bëre Gris Bordeaux man Boy Niang dootuma bëre ak Balla Gaye am na droit pour tànn adversaire bu ko neex ne moom lay bëree comme moom am na droit tànn adversaire ko neex bu bëreel man tamit dama am droit tànn sama adversaire moo war a bëreel. dootoo bëree tey moom ci làmb wala. Oh, Gaston production moo tëgg sama combat ak moom. état du ma wax ci keneen Gaston production moo tëgg sama combat ak Balla Gaye jox ko jox mu avance te yéen ngeen xam début bi yëpp fu mu egsi ba fii. Hmm. moom dafa am droit de dafay seeti Gris Bordeaux pour bëreeg moom avant Boy Niang te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a contrat te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a jot avance ci ci ci ñu Balla bëree yëpp. Gris Bordeaux Balla Gaye dañ ko ko dox mu yàqu. Gris Bordeaux génn wax jël avance delloo Gaston ne ñu bëreeg moom donc man ba may ñëw di seeg Balla Balla amul benn combat. bu dul Bombardier wax moom waxtaan dëgg rek moo neex. ba ñu chien Balla benn combat la am boo xam ne moom la téye muy Bombardier à part Bombardier Boy Niang nga am comme combat maanaam xel mënul nangu nga bëgg tëb Boy Niang jël beneen adversaire te ñun ba ñu demee stade bi dem nañu toog ak Père Gasson mais wax bu ñu wax nekkul wax bu tegu wax dalu suñu xel Balla Gaye dafa dem faju bu demee bu wéree dina bëri yow mois de mai bu wéru day bëri Gris mois de juillet loolu wax teguwul xam nga wax tegul dafa dem faju ji amul problème na dem faju mais bu faju joo ba ñëw mooy war bi nga mbër bi nga war a bëreet moom ngay bëreet munoo waaw maanaam munoo tëb mbër dem jëli mbër munu ma feebar feebar ci Modou Anta ma bëgg a wéet ci ci Fadel làmb doxewul noonu léegi nag làmb ji mënul nekk affaire de affaire de deal affaire de mafia ñun noonu waa kër booy ñaa te ñun ay doomu Pikine lañu te boo ñaa mu nga ko gis ak ñu mu àndal mais dañoo staff boo xamante ni yàlla dafa leen may baax may leen teraanga ci réew mi ñu nekk ay quelqu'un ci réew mi bu ñu waree wax dana am ay mais suñu waree wax dañuy toog waxtaan ñu dañuy gën a génn nga wax lii ak lii ak lii. baax na yàgg maanaam suñu parcours làmb dafa yàgg. merci man dama débuté làmb rek yàlla nattu ma ak mbëru Géejawaay sama combat yu bari non du du débuté la am bëri dóor sax mais bëri simple la commencé. Hmm, <laughs> yàlla nattu ma yàlla nattu ma yàlla nattu ma ak mbëru géejawaay parce que carrière day demee noonu. ma commencé bëreeg marre. bëreeg bëreeg faram faram deux mi faram tuuni bëri nañ ma ak moom. Hmm. daan na marre daan faram daan Pambaay. daan ëmb seen junior daan Lamine Goro non non mbapat bi laay ñëw pare. waaw dañuy déglu rek ñu waxtaan bu ñu déglu waxtaan lépp day ñëw waaw waaw. dañuy waxtaan parce que bi dafa am solo tamit ba dama ñëw fii pour leeral quoi ci mbapat bi laa commencé. ci mbapat yàlla defal na ma daan Marley daan Pape Mbaye ci mbapat daan ëmb seen junior ci mbapat daan Lamine Goro ci mbapat daan Faram Tuumi ci mbapat donc fa ma yàlla commencé ak ñoom ma dugg arène tamit sama adversaire ñëw féete côté boobu chaque jour dama koy wax ne nekkul maa géej waaye guerre parce que dama fa am ay dem naa fa am fa turandoo am fa ñëpp mais laa moom moom mu féete la côté boobu ma ñëw day ay kon mi nga xam ne temps yooyu moo nekkoon liet ma am day ak mbiis day saakajoor day ak les guy gi day ak day ak la dëgg deux day saaceet da ko day la dëgg deux boobu dama wax mention spéciale parce que guy gi ak Lac de Guiers 2 xam nga tax parce que boo duggee seen gox am na mu fa def rek ñu war a bëreeg man dañoo bëreeg man sans ay dem gauche droite promoteur dafa dox suñu combat ñu ñëw seen bopp ñoom ñu bëre. yàlla nag moo yor ndam Lac dama bëreeg moom war mu mën a daan guy gi dama bëreeg moom daan ko war na mu a daan te Lac de Guiers man bëreegu maa rakkam man rakku Balla laa bëreeg am fu ñu jaar ma duma ko ci laa ma daan ko muy saa te boobu noonu dama bëreeg guy gi ba pare défier ko moom Balla Gaye te duma ko nëb ma dëkk ko. lu wax ci ay wax duma moroomam lii ak lii li lii Sa Thiès bëre ak nees parce que ñu ñëpp ay nitu làmb lañ moom mënu ma fee wax créer loo xam ne amul. mu taxaw ci plateau bi daan ne booy fi nekk di réy làmb nañ ñëw. Lamine Samba ne ko mais combat Balla Gaye combat Boy Niang ak Sa Thiès mu ne combat baa ngi noonu dañ ma jox avance ma yóbbaale. dugal xam ci sama combat ak moom débat bi jug ñëpp bëgg ko man tamit ma nangu. par exemple foo xam boo fa bëggee yegg il faut nga jaar ci yoon bi. ma nangu bëre ak moom ma Sa Thiès ñu bëre ma daan ko ci avec la manière mu nekk champion tamit ma nangul ko ko. ñu ne waa di dox sama combat ko Balla Gaye chaque jour dégg nga ko de gauche à droite midi nii dañuy bëre duñ bëre moom nii ak nii ba suñ combat dem ba taxawee donc wax dafa waroon jeex foofu. parce que contrat moo ñu tënk. te bëgguma bëre boo ñaa donc bu jël avance am boo jël avance am nga lekk ko yóbbu sa kër moom mu jël avance yóbbu sa kër da ngeen a war a bëre bëgg waa kër Balla muy moom ak SFM ñu comprendre benn affaire que ñun suñu combat ak ñoom fi mu toll nii fii lañ ko teg. le fait que dañoo war a bëre war duñ bëre wala duñ bëre mais ñoom bu ñu jëlee seen décision am pour tànn pour mën a tënkuñu tënkuñu ñu ñëpp yow nga am pul tànn daanaka Gris Bordeaux ngay bëreen boo ñaar tamit dafay am pour tànn ne du bëre yow.